yàlla Bamba yaa mata am Mbàkke ku defal yàlla lépp lam santaane Bamba yaa jar di xëy di gontu ba far dee ba far dee yaa defal yàlla lépp lam santaane yaa defal Mustafa la xawsiyataanoo yaa di xayrul xadimi fi diwaane لخشيتنا زاد خير القديم في ديوان يو غرم لونغ يالا تجا غرم لونغ jiyonnen walay oyay wane Allah fa day jib ah ib bu day jib su booba Cheikh Ibrahima Fall ni dal janoog borom Tuuba su day jib maam Cheikh Rafaan ana ba suba day jib ah ibu day jib su borom tu ana Baye Fall Baye Fall Baye Fall Cheikh Ibrahima Fall tabuka isbu day jib a ibu day jib dani dal janoon borom Tuuba fajarama Cheikh Rafa tabbas bu day jib aib bu day jib su booba Cheikh Ibrahima Fall ni tëll janoom borom Tuuba fajarama Cheikh Baay Fall bi Cheikh Ibrahima Fall ni tëll janoom borom Tuuba Cheikh Ibra am nga ngërëm Cheikh Ibrahima Fall dani ital janoo borom Tuuba jaarama Cheikh Rafal Cheikh Ibrahima Fall dani ital janoo borom Tuuba may sa bege Kumba Fall jàmbar ja Seex Ibrahima ba aldani del janoom borom Tuuba jaarama Seex Rafal Seex Ibrahima ba aldani del janoom borom Tuuba fal jaarama Seex Rafal Seex Ibrahima ba aldani del janoom borom Tuuba na Cheikh Rafal Cheikh Rafal Cheikh Ibrahim Bamba almani dal janam fal jarama Cheikh Rafal Cheikh Rafal Cheikh Ibrahim Bamba almani dal janam ma sabige kumba fal Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim Bamba almani dal janam ana Baay Faal Baay Faal Seex Ibrahim Baba aldanni dal jaarama Seex Rafaal Seex Ibrahim Baba aldanni dal jaarala Seex Rafaal Seex Ibrahim Baba Cheikh Ibrahima Fall jani dal ganoo borom Seex jaarama Cheikh Rafal Cheikh Ibrahima Fall jani dal ganoo borom Seex ma sëbi ge Kumba Fall يا رب القبلة حمقا أنني تلجأ يا رب شيخ رفاق حمقا أنني تلجأ ما شبيكم بفاق شيخ ابراهيم ما فعل دعني تلجأ ma dëgg dama bëgg ana sëñ Aliou aw bi nag tey ma xaar bi cinq mille jàmbaar ngeen laa waaw waaw jàmbaar ngeen laa ñu taxaw ci ginnaaw naa joxe na ko ñu joxe bu ko la joxe ñëwal fii bu ko gisee naa leen jàngal xam naa bu dee Europe ak yoon xam naa ne cinq mille pesos waaw comme xam na jàng mu am la wala jamono bu la lay ñaan rek tey waa kenn moom moo pare. bisimilah. ana waa kër borom Daaru Xudoos. dama ko nekk ñoom sama bëccëg si Daaru Xudoos dama ko ko nii sama loxo. dama ko sama loxo. sama bëccëg si Daaru Xudoos.